coordonne tout euh, mel ne aussi dafa éloigner un peu mhm. chaque fois ci bon pas à fois yenn saa yi bu génnee jëm ci ay waxam dafay xaw a waroo un ak li nga xam ne voilà moom la ministre bi di dogal. comme qu'est-ce qui explique ça. déjà jour bi mu jaayee euh, la conversation secrète. avec son ministre de la justice benn la mhm. ñaareel bu mujj mooy euh, circulaire bi ministre de l'intérieur génnee keroog jëm ci marchand ambulant yi nee na yëgu ko woon mhm. ci quelqu'un boo xam ne mooy diriger le gouvernement c'est c'est assez grave nga ne circulaire bi maanaam quand quand le ministre de l'intérieur euh, de de l'encombrement de la voie publique. Mmh, de, de la nécessité d'y remédier. Mm-hmm. ba ba gars yi commencé di désencombrer euh, mm-hmm. mbedd yeeg yooyu. Mm-hmm. Ousmane Sonko bind comme si da koy soog a yëg. alors que ministre de l'intérieur bindoon na ko des des jours avant foofu foofu laay waxee en fait. non ministre de l'intérieur bi moom wax na ko moom noonu dafa bind un circulaire pour les autorités administratives maanaam préfet sous-préfet parce que moom déguerpissement bi amoon bu brutal bi amoon foofu Colobane kooku. c'était pas l'autorité administrative c'était les maires maire moo ko def moom moo ko defoon quoi. Mhm. loolu la wax la dégg président ne ko demal nga xool foofu lu xew loolu la wax ah. pour man euh, Ousmane Sonko loolu la wax ko loolu la wax quoi dafa ne li mu dégg kolobaan moo tax premier euh, président ne ko demal xoolal ma lu xew foofu. mooy mais est-ce que du est bi mu nekkee woon bi mu nekk dans l'opposition moo ko moo ko topp ba tey besoin euh, d'être sur tous les fronts besoin ñëpp di ko gis ñëpp di ko xool parce que loolu la ñuy nemmeeku ba tey souvent il va ci yenn yenn barab yi te waxam waxam benn la il s'attaque soit aux opposants soit à la société civile soit à la magistrature soit à la presse maanaam cette manière de faire est-ce que waru ko woon bàyyi ci kujje gi te xam ne léegi il est premier ministre. non xam nga Ousmane Sonko tamit dafa c'est un d'action tamit ci tempérament la c'est un d'action. moom mhm. fu problème am rek il va sur le terrain. parce que li mu def euh, Colobane noonu keroog c'est pas évident est que gis nga fii benn leader politique bu dem Colobane mu musa dem Colobane di wax ak marchand amul. te pourtant loolu risque la jël lu yi. Euh, il faut mhm. yi il faut ñu bu ñu bëggee defar réew mi. il mhm. faut ñu waxante dëgg gis nga li mu wax marchand ambulant dëgg la leen wax ah, pour que ñu mën a changer changer doxalin ko mhm. quant à nag li muy wax ak ministre ak yooyu yooyu des fois tamit sa arrive ça arrive xam nga yooyu day arrive. parce que tamit mën nañu jàpp ne erreur de débutant la la ñuy soog a ñëw la vraiment nekk parfait ko partout. Mhm. dañuy doog a commencer pression bi bare na xam nga liggéey bi bare na xam nga donc des fois du ñàkk mu am ay tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti fay